tay ñu nekk wa Saint Louis TV ñew fi fasiyene yéene waxtaan ak yeen ci seen condition de vie fi euh di leen laaj ndax euh, nan ngeen fi dundé ñoo leen di fay di am mbégte ci seen ñew fi ndax amna na solo trop toog ñëw nemmeewu sa ay mbokk julit ñu nekk da ngeen bokk benn dëkk daanaka xaw bokk benn kàddu sax loolu amna solo amna na ci kontaan fii nag daanaka bu ngeen ñewé rek xol xool way bi war nga xamni ñu fi nekk amna nañu ay. jafe-jafe yi métti yi dund jafe-jafe yi métti na tar na ba maanaam kenn mënu ko wax ku fi nekkul ñu ko dundal ñoo xam ñu ngi si ay baat noonu nekk booba ba léegi yàgg na huit mois ñoo ngi fi léegi te lii gën gënoon yàgg mënoon na fi dund lu mat ñaari weer trois mois mais ñoo fi nekk di fi dund liñ ci gën a métti mooy sunu ay jumtukaay yu ñu liggéeyee dañu sore sunu koom-koom bu su nekk dafa gën wàññeeku. fii avant nu fi ñu sax daan sonn parce que dañ nekkoon ci boori géej gi durant ay quelques at yu bare géej gi di yàq ñuy defar di def seen poos di def ba bi nguur gi ñëw fekk na yooyu sax amatuñu dara bi ñu indi fii rek mu gën a metti di nga base yi fi nekk nii benn base bu nekk quatre familles ñu ñoo fi daan nekk cinq cinq familles ñu si bëri anti mënu nekk ñu daw dem bàyyi ñu fi nekk fi ngay toggee fi ngay sangoo avant nu fi andi duus yi fi nga daan demee gannaaw kër yow sa njaboot ak njabootu jaamur ñoom daan nekkandoo kon dund bi dund fii daal métti na métti koo xam ne kenn mën ko wax kenn te li mu wax dëgg yàlla lii war ma nekk ci réew mu toll na Sénégal waaw war ma nekk ci réew mu toll Sénégal. papa dégg nañu say leeral sëñ bi ñu lay dalal ñu gis nga nekk jeune te xam ne jeunes yi ñoo gën a soxla place boo xam ne euh, seen liggéey day dox nu mu fa waree ñu am dara benn problème bu ñuy jànkonteel ñu lay laaj nan nga ko dundee. waaw a bi sant yàlla ñuy ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi di am kontaan torop ci ni nga xamé dañu fi ngeen fekk fi ngeen doon uh, uh, ngeen doon waa Ndar comme ñun boko ak ñun mbir mi diga partager ak ñun ñun daanaka mbir mi ni ko dundé dund bu métti parce que boy xol uh, Brescia ban ko gëssé bi légui muy 2003 ba légui ñun gënda dañ ci am problème li Ndar di yaq yépp li ke li ke gëna indi moy bëlb boy xol vulnérable yépp lool la. parce que ak dérègle climatique bi ça pose problème parce itamit booy xool comme ni ko sama naataango waxee maam état bi dafa war def ay jéego yu rëy fan nekkoon sonnoon kon bu bu ndee ba xalaat di indi fii war na mën am yeneen jéego yoo xam ne war na ko man tax ndax bu ñëwee suñu xel mën dal depuis ñu génnee booba léegi nag le 12 août 2017. Euh, yóbbu nu école ba nga dund fa deux mois yu moyen nu indi indi nu indi fii le premier octobre mu metti si ñun lool nuy yaakaar ni xëy na dund gi dana mën a sauver ñu nekk fi taw mu bare dam lu fii ak garam yu pare naawal baas yi teg la yëpp indi ay jafe-jafe am ñu si am ay ñoo ñu ba léegi nangootu ñëw fii ndax yaakaar na loolu bu ñu fi ñëwee loolu dañ ko fi fekkaat dund na fi nag ay ay mois maanaam dund na fi deux mois muy soog a am courant dund fi 4 mois soog am ndox dund fi 6 mois soog am douche yéen douche bi ñu koy libéré yàggul kon loolu rek problème bi bu bu rëy la ay paan jigéen ñi dañu mujj obligé wu jënd ay paañ di sangu di dugg si si biir di sangu ku sangoo pare génn xajal sa moroom fi ngay demee douche fi ngay taale fi ngay defee yëpp ba pare amuñu santé bu ñu ñëwee ba léegi wératuñu njàngu xale yi yàqu na muy bu daara ji muy bu école bi yëpp yàqu na kon nguur waroon na mën am nguur gi war na am taxawaay boo xamante ni comme que ñii dana am problème bu fu ñu jógee bu ñëwee fii lépp loo xamante ni maanaam te na nga feere bu ñëwee fii war a maa waratuñ ko fi mën fekk xëy na bu ñu ñëwoon fii ñu defar ko defar boo xamante defar ba sa war la ñun bu ñëwee du jooy dara dina ñëw rek. toogandi xaarandi xam ni état bi dana wax si ñun mais def na fi tegandi tegandi mais tegandi noo ngi ci huit mois parce que booy xool mbir mi trois mois rek war ko woon wees ndax provisoire indi na fu la teg provisoire waru mën a yàgg boobu léegi nag ñoo dund noo noo ngi leen mais juin ngay dugal sa neuf mois. waaw yooyu yooyu daal mooy suñu jafe-jafe dëgg-dëgg. d' accord papa ñu lay laaj ñu dellu di laa laaj ba tey si est ce que yéen am na si lenn lu ngeen sukkandiku loo xam ne ñoom yëkkati nañ ko muy ay kàddu yu jëm si yéen yoo xam ne dalal na seen xel wala mën ngeen si jàpp te xam ne bàyyi nañ leen xel bu baax. waaw ñoom quoi ñëw nañ fi euh, dimlu ay place fu mu nekk bu jub wax ne itam daanu yëkkati yóbbu na si beneen bërëb bala nawet bi dina fekk fii ndax maanaam kii kan du ko mën a régler loolu na nañu ko comme ay dëkk wax ne itam kër yi daan ko commencé ba balay yàgg mais xëy na pareem du léegi waaye ñun liñ ci gën a métti mooy ci baas nañu jëlee dinañu yóbbaat si ay baas te dañ dëkkoon si ay tabax yoo xamante ni xëy na ministre sax da dàqoon woon kër kon tey bu ñu yóbbu si baas ñu mun ko ñu yóbbaat si baas plus maanaam li ñu war a jógee fii di dem gendar di liggéey seen njaboot gi di paas ak ñëw xale yi dem yooyu yëpp daal dafa nekk loo xamante ne wax dëgg yàlla dafa metti metti na kenn mën ko dund waaw dañ si mënul dara nag waaye metti na trop trop ñoo ko dund lu metti metti metti la bu doon suñu soxla daal état bi base yi mu doon wax sax mu bàyyi ko pexe nu luyeel ci ci biir dëkk bi ñu mën jógee seen liggéeyukaay yi kër yi moom saa bu paree baax na waaw mais jëluñu si base ñu yóbbu si base moom loolu wax dëgg yàlla moom dafa nekk lu diis ñu ñu ko dund xam na ñoom ku fi ñëwoon rek bëggoo fi yendu yéen ñi fi ñëw nii xam nga ni cinq minutes bi nga fi rek day xam ne fii du bërëb bu noo xamante ni war na fi yàgg kon bu amee huit mois muñ ñunu wax dëgg yàlla muñ ñunu kon bëgg na nu gaaw si ñun jéem nu sàkkal pexe ba nu mën dund yeneen dund waaw bëgg na ko si ñoom sëñ bi ñu jeexal rek nga nekk jeune mun nañ ni sax suñu papa yi ñoom ay mag lañ xëy na seen déplacement du bëri ak yooyu mais yow mi nga xam ne jeune nga nga war a liggéey di daan sa doole chaque jour va et vient bi dem ak delsi bi nan la mel métti na wala lan nga ñu siy wax. waaw va et vient bi métti na trop. parce que boo xëyee suba bëggu paas cent cinquante aller cent cinquante retour loolu métti na yenn bis yi da ngay yeewu sax do ko am des fois da ngay dem dëkk ba pour liggéey guddee ñëw fekk biis yi wàcc ndax biis yi neuf heures et demi dootu fekk di benn biis yoo xam ne dafa ñëw côté xaar yàlla di ran benn benn biis na nga koy def da ngay mujj obligé wu dem bango dugg si taxi ñëw te nekkoon ni toujours da ngay am loolu. léegi léegi boo amee fanweer bëgg dem garage ba nga bu bëgg fay trois cent cinquante fay cent fay cent franc wàcc wàcc pont bi dugg garage fay deux cent cinquante du mu indi la fii day jafe fekkente ni taxi yooyu dañu wàcc da da ngay obligé wu fay mille cinq cent ñu indi la wala mille franc xam loolu kon métti na mu bëgg daal état bi mu jàpp si mbirum transport am na ndax am na ñoo xam ne fii bu ñu dee liggéey quatre heures du matin noo jóg dem am ñoo xam ne ni cinq heures xam nga yooyu itamit maanaam day day wàcc day wàññi seen activité yëpp ndax booy xool ñun ñi suñu liggéey pour mu dox comme na ma doon doxee sax léegi jafe ne doxeetu ko ndax lan lii nga xam ne bokkul woon si ñoom transport dem ñëw dañ daan dëkk sunu buntu kër dañ daan toog dem géej jot nu jël sunu gaal dugg si dem mais léegi nag mënatuloo ko wala même boo demoon sax nga dégg ne gaal dem na ñëw na. nga dem wuti fa jën maanaam nu ñuy wax moo di wax neeraan ñu neeraan la maanaam lu may la jën nga nga jaay ko dimbali seen njaboot mais ne yooyu yëpp mënatuloo ko léegi yow boo demul loolu mënatuloo ko bu la woowul téléphone fii ku wax la doo mën xam yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne dafa kii dafa kii dafa wàññeeku si ñun te du doon suñu soog digg yàlla nu yóbbu nu foo xamante ni même bu jógewul géej gi itamit maanaam digganteem ak géej gi du soro lool lool ndax ñun géej nañu maîtriser te géej mooy suñu métier te nit ki métier moom si si si la man tëddee si la mën a defal képp koo xamante ni maanaam wërsëgam yi si mais bu la bëggee imposer leneen loo xam ne xamuloo ko da ngay indi sa bopp problème indi ko problème moom état bi daal na xool daal moyens yu mu mën a def boo ko defee daal situation yi nuy dund nu génn si ndox si situation yi. critique te situation yi nekkul situation boo xam ne nit war na ko mun dund daanaka bàyyi mu sax boo ko fi indi woon daa quelque temps sa xel dana fi nekk yow pour nga jëlee ko fi nga xam ne fii du place am exactement la ay nit yoo xam ne ay borom dignité ay borom xam-xam ay borom expérience ñoo xam ni ñii dañuy jàngale ñii dañuy jàng ñii ay ay intellectuel lañu xëy na géej moo leen dàq mooy comme vulnérable yàq seen kër normalement. booy xool ñoom bi nu génnee si kër rek danga waroon duggaat si kër ndax ndax boo tàmmee kër ñu xëy suba sa yëpp di dox nu génn la teg la si baas xam nga ni sa mbir dana xaw doyoo trop pour nga nelaw guddi sax day nekk problème waaw pour état bi daal mu bàyyi xel loolu baax baax baax baax. voilà papa ñu lay laaj lan ngay tàggatoo. waaw li may tàggatoo rek mooy euh, di wax maanaam état bi surtout ki nga xam ne mooy sunu président de la République muy Macky Sall mu jëm nu bàyyi xel bàyyi nu xel ak euh, soxnaam xam ni ñun waa Guet-Ndar am nañu solo lool si si koom-koomu dëkk bi waaw mu bàyyi nu xel lool waaw ba balaa yàgg mu fexe nu jël fi parce que lu ma nekk la Sénégal am na xaalis boobu banque mondiale def na fi xaalis Macron def na fi xaalis te xaalis boobu ñu war na si gis seen bopp waaw war yàgg loolu daal nu ñaan mu defal na ko mbokk yi mi ngi noonu ñoo ko déggandoo ñu nekkoon fii ci xaar yàlla pour suñu première émission voilà di leen jox rendez-vous ba beneen yoon ci yeneen i information